l'agent assignataire ki war a yore xaalisu leb bii ñu leb du kenn ku mooy trésor public bu Sénégal donc il faut ñu déglu wax ji xaalis bi bi ñu koy leb le contrat de crédit dafa wax ne xaalis bi bu yegsee Sénégal le contable assignataire mooy trésor public moo war a yore xaalis bi xanaa kon beneen jalgatee ko may wax ne man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 Nous nous, nous nous excusons de ce, de ce retard. Merci d'avoir effectué le déplacement. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation pour aborder avec vous certainement trois questions essentielles. Il y a quelques jours, je parlais de scandales autour de 98 milliards de francs CFA relativement au plan spécial de désenclavement du Sénégal sur la période 2023-2027. En effet, comme vous le savez, des entités sous la tutelle du ministre Mansour Faye en charge de ce département ont fait un emprunt auprès de la Société MUFG pour un montant de 98 milliards de francs CFA. Une transaction en bonne et due forme, avec une garantie souveraine signée par le président Macky Sall à la date du 6 janvier 2022. Oui, vous me direz que tout est normal à la matière. Mais c'est bien, c'est très loin d'être le cas. Et pour cause, nul besoin de vous rappeler que les fonds n'ont pas atterri au trésor public. Je dis et je répète que les fonds n'ont pas atterri au trésor public, mais sont plutôt logés dans un compte privé. En toute illégalité, violant toutes les règles de transparence en la matière. Plus grave, ces fonds en question, retenez bien ce que je dis, ont été placés en DAT, en dépôt à terme. Autrement dit, l'argent a été prêté à une banque de la place. Pire, ces fonds produisent des intérêts, lesquels intérêts sont versés dans un compte au nom de l'État du Sénégal, à l'insu des services du ministère des Finances, en l'occurrence le Trésor public. D'ailleurs, permettez-moi de préciser que cette manne financière est logée à la banque FBN, National Bank ou First qui est ici au Sénégal. Le numéro de compte, c'est 01 00 221 500 000 160, ouvert au nom de ASGC Sénégal. En ce qui concerne les intérêts, l'argent, je viens de vous le dire, a été déposé en DAT et les intérêts générés sont logés dans le compte suivant 0100 220 600 00 0019 86 et c'est au nom de l'État du Sénégal au nom de de l'État du Sénégal dans les livres toujours la SBN Bank a rappelé et méconnue des services du ministère des Finances. Pire, c'est un proche de Mansour Faye qui en est le signataire et non un agent comptable, comme le veut les règles de transparence qui régissent les finances publiques. Loin de me trouver dans une logique polémique, le plus important est de dire la vérité aux Sénégalais, au nom de la transparence dans la gestion des deniers publics, que le principal concerné éclaire les Sénégalais et leur dise exactement ce qui s'est passé. Encore une fois, j'insiste sur le fait que le contrat de marché et le contrat de crédit n'ont jusqu'ici pas été approuvés par le ministère des Finances. Ce qui est constant par contre, et j'ai vu dans une parution du quotidien Walfadjri, les services de Mansour Faye disent que tout est en règle, oui, pour ce qui concerne uniquement le marché de gré à gré, passé entre ASGC UK et Ageroute. Cela doit être clair et je crois que j'ai déjà été assez clair là-dessus. Dans tous les cas, le signataire assignataire, comme le stipule le contrat de crédit, doit être le trésor public, rien d'autre. que le trésor public. Ce que nous attendons alors et que tous les Sénégalais attendent également, ce n'est rien d'autre que des éléments de clarification autour de cet argent, 98 milliards, emprunté au nom des Sénégalais. Et je dis, je répète, cet argent n'a pas atterri dans les comptes du Trésor public. Par de la presse, permettez-moi, au-delà de cette nébuleuse autour des 98 milliards, de rappeler au président Macky Sall que les Sénégalais sont fatigués. Si lui-même reconnaît que la vie est chère et que les denrées, prix des denrées ont flambé, ce n'est rien d'autre que le fruit d'un échec. Qu'il sache et qu'il retienne que les Sénégalais lui ont tourné le dos. Autre élément de grande importance, ça la convocation à la sûreté urbaine de l'ancien Premier ministre, Cheikh Agibou Soumaré. Je dois dire que la judiciarisation de l'espace politique dévoile une peur du président Macky Sall et de son régime. Comment Sur la base d'interrogations En lieu et place de pouvoir apporter des éléments de réponse, l'on cherche à intimider un Sénégalais. Monsieur le Président, l'état de droit est la seule demande sociale. Respecter les droits des citoyens, respecter, Monsieur le Président Macky Sall, les droits des opposants, respecter les droits de la société civile et ceux de la presse. Enfin, par rapport à la situation politique, J'invite toute l'opposition, malgré nos différences, transcendons nos difficultés et points de désaccord car nous sommes dans le même combat, engagés pour le même objectif, celui de barrer la route pour une troisième candidature du président Macky Sall et de mener le combat pour un processus électoral transparent. Je vous remercie de votre aimable attention.